Euh, miile moom nag Juan Branco jamono ji la mu xamle euh, ndiki démb ca page ca compte Twitter mi ngi xamle que ne euh, mi ngi accusé la France ne France moom moo bëgg mu noppi te tamit la nga xam ne parquet bu Dakaaru daal dina koy def mooy que wax que nañ nañ jàpp ki nga xam ne mooy Juan Branco mandat mandat d'arrêt mandat d'arrêt mandat d'arrêt international moom nag Juan Branco mi ngi wax que loolu yëpp France moo nekk ci ginnaaw moom moo bëgg mu noppi ginnaaw ba mu révélé crime contre l'humanité mars mars 2021 ba juin 2023 neen loolu rek moo nekk li nga xam ne moom mooy raison bi tax la France bëgg euh, ki nga xam ne moom mooy Juan Branco euh, daal di noppi nan nga jàngatee mbir mi lee euh, Kébé effectivement démb ñu ngi ko gis moom mu dugal pointe que statut mu ni sous la dictée présumée de l'Élysée une notice rouge a été demandée à Interpol par le parque de Dakar pour me faire arrêter effectivement comme ni nga ko waxee sànq euh, mu euh, tey Juan Branco en tout cas euh, mhm. mu nekk koo xamante ni si nii tey commencé na dugg ci mémoire yenn Sénégalais yi commencé na marqué li nga xam ne moom mooy seen esprit boo xoolee ba tey en tout cas ba tey mhm. gis nga parquet bu Dakar ba tey euh, gouvernement <laughs> gouvernement du Sénégal. Euh, moom xoon ba na ko mais nag moom nee na nag c'est pas la première fois. Euh, parce que ay at ci ginnaaw sax gouvernement wu France doon nañu jéem a tenter. voilà voilà pour pour quand même jéem ko jéem ko arrêté wala ainsi de suite te moom gis nga ko moom liggéeyam moom li nga xam ni tey moom lay défendre mooy nooteel gi nga xam ni ñu am ñi des fois ñu ngi koy teg teg ñu ñàkk ñi ak euh, jaay doole gi nga xamante ni si nii des fois ñu ngi koy ñu ngi koy euh, ñu ngi koy ñu ngi koy euh, noté ci yenn côté te déngoo ko mu ni am na gagné na ay procès yu mag a mag a mag a mag yoo xamante ni si nii moom Juan Branco gagné na ko ci yenn personnalité yu mag a mag a mag contre tey Emmanuel Macron ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni si nii voilà voilà moom en tout cas kon lii nii dafa jàpp ni rek xëy na yeneen wi ñëw dolli ko la ci fi jotoon na jaar mais boo xoolee tey euh, ñun li ñu gën a intéressé mooy le fait que tey gouvernement wu Sénégal maanaam di gën a focus ci à naka la def ba arrêté ki nga xam ne moom mooy maître Juan Branco man li ma ci def ay reetaan rek. def ma ci ay neex mooy <laughs> euh, dañu jógee ci avantage ba euh, ci mandat d'arrêt <laughs> international. parce que dañu euh, ba ñuy commencé dañu doon wax ni booy bi li muy def ni ay yëfu xale la. ay yëfu gone la ku mënul am ku mënul am dossier boo xam ni mat na 1000 euros fële ca France sax dossier bi ko Ousmane Sonko jof jox daf ko jomb ainsi de suite ainsi mais tey boobu léegi événement euh, gannaaw ba euh, révélation yu fracassante yi nga xam ni def na ko parce que dafa def ay révélation yu yu yu des révélations très graves quand même euh, ci la complicité de la France euh, ak gouvernement bu Sénégal ci crime yi nga xam ne am na fii ni ak noppi yu mu ci noppi ak révélé ay euh, yeneen yoo xamante ni si ni mbirum armement yoo xam ni tey euh, palais présidentiel recevoir nañu ko génnee benn notice boo xam ni publier na ko mhm. yooyu yëpp tey mu def ko mais nag xam nga yomb na trop nga ni dafay def avantage mais kuy def avantage di génne ay preuves yoo xam ni mi ngi koy mu ngi koy génne ça veut dire que lii am na en fait lu muy wundu parce que bu fekkoonte ni euh, Juan Branco peut-être dafay fo parce que ñu bari ba tey ñu ngi jàpp mbirum CPI e ay mbirum fola ak mbirum enfantillage la ainsi de suite euh, mais pour pourquoi euh, ñu suñu ñu ñu continuer di sonn ci mbir mi ni à ce ñu arrêté ko ainsi de suite kon ça veut que il dérange la France ak fii Sénégal aussi bu bu bu baax a baax a baax mm-hmm. mais mais <laughs> mais boo xoolee tey maanaam boo dangay xool rek ay position maanaam ay position am ñi fi muy fi muy féete la plupart mhm. euh, dafay fekk ni parce que nag dara gënul neex dara gënul noobul mhm. ngay xeex combat boo xamante ni si ni gis nga fekk yaa ngi nekk ci dëgg amul lenn loo xamante ni si nii mhm. euh, mën na ñëw ba tiital wala mu xoqatal boo xoolee il est mais xoolal li muy résister lépp ak projet yi nga xamante ni si mi ngi koy dugg en di ko di ko di ko gañ c'est-à-dire affaire yi nekkul ci mbir ay âge ak yooyu noonu ñu baree bari nag bu ñu la xoolee nii gis ni yow mii xale nga daal dañu lay xaw a soofal alors ko mbir du ci affaire âge affaire ci bopp la mm-hmm. ak xam-xam parce que xam-xam du ay pexe mais boo xoolee tey soo moom l'avocat Juan Branco son métier tey en tout cas déggaguma kenn ko am lu m ko ci reproché ñun ci loolu lañ doon xaar ñu ni ah peut-être il est nul parce que tel ak tel maîtrise ko wala nangam ak nangam mais boo xoolee li ñu la wax mooy euh, il est jeune avant <laughs> ay am ñun <laughs> enfantillage loolu lañ ñu loolu ak ah, loolu intéressé wuñu la xam nga loolu ñu intéressé moom li nga xam ni tey moom la ñu koy xaare mu koy def sérieusement mu koy def normalement en fait muy li nga xam ni moom mooy son métier te mu koy def euh, avec objectivité en fait mais euh, taxaw fii nag naan ñu euh, parce que il est jeune mënul am dossier 1000 euros même bu am mënul am dossier 10 euros Europe sax te muy ñëw am dossier fii te di ko def teg ko ci ak teg ko ci yoon ñun loolu rek doy nañu en fait léegi nag Euh, bu fekkente ni tey jii. da nga bëgg pour euh, euh, pour pour décourager loo ñenn ñi la woon parce que <coughs> temps bi temps boobu si ku nekk li nga xam danga koy génn wax. waaw wala loo xam ne sa jàpp nga ne lii boo ko waxee dina suul dara da ngay génn wax ko. Ah, jamono jooju lañ tolloon moo tax. tey nag tey nag problème <laughs> problème yaa ngi xam nga gis nga gaawtu moo tax gaawtu baaxul. tey am na ñu bari ñoo xam ni moo leen daloon ci tey jii. Euh, ñi nga xam ni tey mbirum créé yi ak bi wa bi xam nga ndax après dañ ci ñëw mu ne muy cent soixante dix milliards yi nga xam ni ñi nga xam ni euh, tey Antoine Félix Diome booba moo nekkoon procureur créé yi tey moom moo gaaw saisir bien ñi nga xam ne tey ñoom ñooy bi wa bourse mais tey ñi nga xam ne jënd nañ bien yooyu noonu mais tey jii danañu am jafe-jafe yu mag a mag parce que te boo xoolee cent soixante dix milliards moo tax mhm. vraiment euh, état gouvernement du ay caaxaan du ay fo du ay tappale mais cent soixante dix milliards yooyu noonu tey malheureusement du Antoine Diop moo koy fay du Macky Sall moo koy fay président Macky Sall du procureur moo koy fay mais tey ñun ñii les Sénégalais mais ñun ñoo koy fay parce que c'est l'état du Sénégal euh. ah tey yi boobu noonu tey jël nañ ko fi ñu ni dañ ko fi dañ ko fi eh, dañ ko fi jële en fait mais léegi ñi nga xam ni gaawantu woon nañu tey dem jëndi bien yu jàmbur yooyu nga xam ne dañ ko saisiroon voilà en fait mais tey jii naka la ñuy tamit duñ dem toppi ñooñu lépp parce que tamit euh, nit koo xam ne dafay jaay euh, ñu def benn parenthèse ci wàll woowu la soo ko dugg euh, ci mbirum Juan Branco ñi nga xam ne ñoom ñoo def wala ñu def ci mbirum Juan Branco suñ mhm. paree soo ko dem ci mbirum Bibo Bourgi boobu le comme ni ñu ko waxee tantôt ci wàllum Juan Branco la nga xam ne France moom mi ngi accuser la France que ne moom moo ko bëgg a noppiloo moo tax mu jaarale ko ci euh, parquet bu euh, Ndakaaru kon cela montre que ne la nga xam ne Juan Branco wax na ko euh, Kébé mhm. depuis le début que ne am na ci loo xam ne mën nañ jàpp ne dëgg la vu na nga xam noonu la ñuy dalee ci kawam à chaque fois juste rek pour noppiloo ko juste rek pour bëgg koo arrêté maanaam boo ko bëggee arrêté mooy bëgg nga koo noppiloo kon cela montre que ne Juan Branco lancé bi nga xam ne mu ngi ci neexul la France mais aussi neexul le Sénégal waaw xam nga tey. Mhm. Mm, moom dafa def ay révélation yoo xamante ne sii nii moom indi na ay preuves. léegi voilà il faut que nag ñu dem les preuves yooyu ak loolu mu wax tey juste moo mën a wax ni lii nii dëgg wala du dëgg. léegi ñoom ñii nii en tout cas seen ay réaction ñun daf ñuy jox rek suspect en fait. voilà merci mais comme du ñu confirmer que ni peut être dëgg la wala dëgg. mais daf ñuy jox suspect. que ni vraiment parce que man de wax dëgg yàlla euh, boo boo boo boo boo euh, ma nee. yaa jël nangam te fekk jëluma ko dinaa amee conscience tranquille boo xam ni man fu fekkoon may def dara du ko yàqal dama ko continuer tranquillement parce que damay xam ni effectivement li ñu may wax euh, defuma ko mais bu ñu la ko waxee ngay tëb di dalaka dal rek c'est parce que euh, xëy na peut-être suspect dafay daal di am moo tax tey mais boo xoolee euh, Juan Branco mais li mu wax mais boo xoolee manifestation yi daan am fii ndeyaa milice yi ñuy daan gis ñii di gis ci ay côté policier mais policier yi tey jii nii kan moo leen yilif du ministre de l' intérieur. ministre de l' intérieur boobu noonu tey. kan moo ko yilif du président de la république. mais boo too soppee boo toppee seen du am sax ay wiiri wiiri dafay def direct. dëgg bu ñu nee ñii ne kon am nañu complicité ak ñii nii tey ministre dañu am complicité ak la police. Mhm. police boobu noonu. Antoine Diome moo ko jilif en plus lu ci gën a grave mooy que milice yi nga xam ne gis nañ leen ci buntu siège euh, loolu tamit dafay gën a waaral mbir mi. mais xoolal F France 24 la xëma euh, vidéo yi nga xam ni def nañu ko ci ci ci ci waa police ki ñu génne woon doon ko projeté naan kii nii te ñoom xam nga yàlla non yàlla du nit. <laughs> ki ñu doon génne naan kii nii nanga manifestant la boo xam nanga ma nangam. voilà mooy numéro 9 bi waaw ci ñoom la jóge woon en fait. wàcc seen oto génn euh, kon tey ñoom foofu amatuñu lenn loo xamante ni si dañ ko fa weddi mais ñooñu tey bu ñu nee complicité am na ah, est-ce que dina neex a weddi en fait. Mm-hmm. du du neex a weddi kon ñooñu tey dañu amee responsabilité léegi beneen bi ci des mooy ay moor doom am. waaw ay nit yu bare bay ñàkk seen bakkan. Mm-hmm. état du Sénégal mars gouvernement mars 2021 ba juin 2023. waaw ba tey enquête yi. dégg rek la ñu ci am. dégg voilà surtout euh, juin bi sax dégg lañ ci am mais mars 2021 moom dañoo waxoon enquête day am. mais malheureusement mais ca mars 2021 rapport d'état américain bi nga xam ni. génn na mu ni ñee ñu si rey dañu leen rey gouvernement bi moom moo leen rey. wala ñu rey leen ci turu gouvernement bi. Mm-hmm. mais euh, tey Juan Branco tey c'est un avocat boo xam ni nag. te li may wax à chaque fois di ko rappelé mooy. waaw que ni dossier bi dégg nga publiquement mu ngi du moom rek moo ci liggéey. dëgg la <laughs> ñoom maanaam euh, ay av moom nekkul kese ni moom mooy avocat avocat Ousmane Sonko. c'est un pôle d'avocat boo xam ne euh, trente personnes à trente trente et une personnes tey ñoom ñoo ko formé. tey trente yi nekk fii nii ak moom mi nga xam ne tey mi ngi woon France ñoom ñu ànd liggéey ci dossier bi ba mu sotti ça veut dire que tey gis naa avocat Ousmane Sonko itam ñoom ñu ni gouvernement bi def nii euh, maanaam ay diversion la. yooyu parce que euh, vraiment euh, <clears throat> mm, xëy na euh, commencé nañu di di di avoir peur. Okay. di euh, craindre yenn yi parce que nag CPI du du ay caaxaan. pour dire vrai mën nga toog nag naan c'est parce que ay mbiri tappale laak gis nga mag lu muy wax di ko wax c'est parce que la muy wax lu muy répété di ko répété c'est parce que la yow dëgg la ci moom <laughs> heure boo génnee maanaam CPI du du nekk te boo génnee tudd CPI ak ak wax CPI. c'est parce que kon CPI boobu noonu am na ñu mu traîner nelaw c'est ça en fait moo tax ma ni euh, tey Juan Branco. Mm-hmm. en man li may wax rek lay France du Sénégal. non France moom am nañu indépendance gu toll nii xam nga ku gagné un dossier contre Emmanuel Macron. Ouais. président de la France. kooku yaakaar naa que ni euh, justice boobu noonu yaakaar naa ni wax dëgg yàlla euh, gàcce ngaalaam rek lañ leen mën a wax moo tax. nañu nañu toog rek ñu xaar ba xam tey euh, France danañu jébbal Emmanuel Macron ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, waa Sénégal waa wala déet en tout cas je crois pas euh, danañu def nag li nga xam ni moom mooy yoon parce que man dama gëm ni tey la justice française mhm. indépendante boo xamante ni si ni kenn du ko yeew bu mu ci baat danañu def li nga xam ni moom la ñu war a def. waaw. lu ñu ca gis ñu xam ni loolu la mais nañu nañu bàyyi rek yoon def liggéey beneen bi ci des nag mooy CPI ah. puisque yóbbu nañu mbir yi nañu toog rek di xaar en fait les suites loolu itam c'est c'est <laughs> extrêmement important voilà mi ngi noonu nag comme ni ñu ko waxee tantôt moom Juan Branco ni ki démb euh, la daal di euh, posté ci euh, compte Twitter am di xamle que ne la nga xam ne parquet waxoon na ko mandat d'arrêt international loolu la daal di xamle woon ci Juan Branco moom nag mi ngi wax que ne moom Juan mi ngi wax que ne euh, France moom moo nekk ci ginnaaw moom moo bëgg euh, ki nga xam ne moom mooy Juan Branco ñu daal di koy arrêté waaye tamit daal di koy euh, noppiloo mais Juan Branco mi ngi xamle que ne ci 2019 Aurore Berger moom itamit signalé woon na procureur ci livre ba nga xam ne bindoon na crép tuddee ko crépuscule loolu léegi tamit signalé woon nañ ko ko ca procureur waaye itam mi ngi xamle waat ne en 2020 2021 2022 aussi amoon na ay problème avec la justice ak li ni mel lépp rek ak ay intime intimidation euh, intimidation ak ay menaces yoo xam ne daan na ko jot kon cela montre que ne moom. France à chaque fois euh, day bëgg noppiloo ki nga xam ne moom mooy Juan Branco parce que démb euh, moom moo ko daal di euh, révélé wax que ne 2019 2020 2021 ba 2022 lépp rek ñoom ñi ngi tenté pour arrêter ko waaye itam ñi ngi tenté pour noppiloo ko mais malheureusement jusqu'à présent moom Juan Branco ma ngay addu di wax la nga xam ne problème ya nga xam ne yenn ci français yi ña ngi koy dund waaye itam fii Sénégal ci crime contre l'humanité parce que ku xam ne ne mars 2021 amoon na ay crime ay yu bëri yoo xam ne nemmeekoon woon nañ ko ci juin 2023 aussi euh, ni ni mel même chose daal di amaat fii Sénégal moom Juan Branco daal di taxaw temm ngir loolu ngir loolu la ñu mën koo saafara waaye tamit ñi nga xam ne ñooy def jëf jooju noonu ñu mën leen a arrêté yóbbu leen ca kanamu yoon ngir ñu daal di mën a euh, layal li nga xam ne moom mooy seen bopp ca la nga xam ne mi ngi am fii nii euh, suñu réew di euh, Sénégal bu jugee ci loolu comme ni ñu ko waxee tantôt ci affaire Bibo Bourgi nag ku ne xam ne ne affaire Karim Wade dañoo saisiroon li nga xam ne moom mooy ay bien ba jamono ji moom comme que CREI supprimé nañ ko moom nag Bibo Bourgi te da ci la daal di ñëw. ci lañ daal di condamné ki nga xam moom moo état euh, du euh, Sénégal ngir mu daal di fay bii boobu lu toll ci cent soixante dix mille cent soixante huit mille